le rendez-vous des nouvelles technologies. Kinti. Un de ces quatre, on va le caler en direct, hein, Maïté. Bah oui. On parle de ça. Bah hein? Alors, voilà, euh, nous allons parler de recyclage. On est, oui, on est à l'ère du recyclage. Tout le monde sait que maintenant, euh, c'est plein d'entreprises maintenant qui ouvrent ça sont dans ce domaine-là, dans le domaine de recyclage. Parce que au Sénégal, il y a énormément de déchets qui sont inutilisés. Mhm. Il y a énormément de déchets qui peuvent être utilisés et dont les gens ne s'en occupent même pas. Euh, par exemple tay dang koy xolé période sachet yi tey demoon nañ bi risque bi ñi doon wax moment bi ñi wax vraiment affaire recyclage on a commencé par les sachets les sachets qui traînent un peu partout nga xam tane déjà déjà fay def dégradation ce sont des sachets qui ne qui les sachets légers voilà duñu duñu duñu mhm. duñu duñu disparaître facilement parce que tout simplement par rapport la qualité bi ñu ko defaree ak produit ñu et tout ça là donc on a commencé par faire le recyclage des sachets di ramasser sachets yi nga xam tane ne ñu ci mbedd bi ben moment il y avait plus de sachets à Dakar ils avaient fait carrément l'interdiction des sachets pourquoi parce que euh, elles sont euh, nii à période moment une ñu euh, par rapport la réchauffement climatique etc. donc euh, les sachets n'étaient plus autorisés au Sénégal bon après les gens dañuy dañuy dem ba da nga xamante euh dañuy dem ba dañuy bàyyi dañuy dañu de ba ben moment sax après ñu arrêté ko. Mhm. donc set lo légui sax commencé wat nañu gisaat sachet un peu plus dans les boutiques. etc. mais avant un moment c'était interdit. donc dañu forcé woon nit ñi à ce que ñu jël papier parce que papier bi moy gëna dégradé wu moy gëna gaaw euh, que que mbuus bon ñu dem ba ci biir ñu bàyyiwaat ko bon mais les gens sont toujours en train de lutter contre ça donc comme nous qui information bi ni ñu jot nga chaque jour près de 500 6500 tonnes de déchets sont jetés au Sénégal imagine toi la quantité de déchets qui bi nga mom lañuy euh, gis au Sénégal euh, toll ci 6500 tonnes c'est énorme c'est énorme donc tay recyclage bobu non mo waral tay jii nii loolu yëpp daal di diminuer manam tay quantité de déchets bi nga xamne dañ ko daan gis ci mbedd bi légui wàññeeku na parce que légui recyclage bi moko waral les gens recyclent du tout maintenant les plastiques les les les papiers lepp lañu jël di ko recycler wat mhm. da ngay xool tey léegi nii sax même dans les dans il y a un tri qui se fait en fait voilà un tri qui se fait par rapport ak lu nekk ak li nga xamantene mom lañ koy mom mom lañ ko besoin bi lañ ko lañ ko soxla dañ koy trier muy bouteille yi muy euh, yi yi muy këyit yi lépp verre yi ak yëpp dañ koy jël même fair bi fer bi dañ koy recycler da gis ñu sànni ay ay ay ay ay ay résidus de fair ak yooyu noonu sànni ko ci nga gis nga ay récupérer waat ko ah waaw canette yi kanetu kanetu mariage yi da ngay gis xew yi léegi boo jógee ci da ngay gis léegi xew yi bu jeexee da ngay gis kenn ku yor mbuusam di ramasser kanet yi di ramasser kanet yi nga naan waa ki lan la koy doyee dégg naa kilo bi ñu ngi koy jaayee soixante-quinze CFA. voilà tu vois donc euh, mu récuplast am na benn société bu koy def waaw récuplast da koy def mooy waa Proplace. donc ma ci euh, nuy waale euh, Matar bu baax Matar Yàdd mhm waaw kilo karet non kilo kilo kilo kii euh, bouteille bouteille plastique yi kilo bi par kilo dañ koy dañ koy jaayaat da ngay ñëw jaay leen ko ñoom ñu jënd ko parce que ñoom au fait dañ koy recycler mm-hmm. ñoom bu ñu ko recycler dañ ci def euh, ay euh, ay banc dañ ci defar ay banc ay bolu plastique ay tapis ay paan ak plein de d'articles yoo xam ne li ma bëggoon laaj li ma bëggoon laaj moi je remarqué que bu ñu xoolee léegi les chaises en plastique là mm-hmm. euh, de plus en plus dafa nekk ay chaises yoo xam ne mag ñi bu ñu ci toogee dañuy daanu parce que dañuy wax na dañ ko jël recycler waat ko donc recyclage boobu noonu dëgërul aussi est-ce que aussi l'on tamit gars non eh, eh, eh. après wala kuy peser 100 kilos de toxique chez chaise plastique ça yi. que peser 100 kilos non c'est que. chaise euh, plastique non non chaise plastique du plastique non c'est que il faut il faut comprendre ah. une chose il faut comprendre une chose les choses les choses évoluent de plus en plus. au départ les les gens qui étaient dans le domaine de recyclage avaient pas vraiment tous les matériels nécessaires. Ah, à toutes toutes les euh, toutes les machines nécessaires pour pouvoir faire un bon recyclage. mais plus on avance plus on ils ont en train ils sont en train vraiment de d'investir là dessus d'acheter des bonnes machines voilà des broyeurs yo permettent ah, daf la permettre ñu euh, qualité bi nga après pour recyclage bi donc ça veut dire que aujourd'hui euh, xam impact bi nga recyclage bi am ci donc les gens sont en train d'investir là-dessus il n'y a pas encore beaucoup de structures qui sont dans ce domaine mais il y en a des grandes structures qui aujourd'hui évoluent dans ce domaine-là et qui font même un travail vers l'international donc ça veut dire que vraiment c'est un travail méticuleux et c'est dans l'intérêt de notre pays parce que as imagine toi tey 6500 tonnes de déchets par jour on en retrouve peut-être une tonne ou deux tonnes. Hein? parce que tout simplement 1 les recyclés donc imagine toi 1 bon recyclés pendant des mois ça veut dire que vraiment nous avons dimbali. Euh, environnement pour que les déchets soient mais il y a un danger Qui y a aussi derrière c'est que les gens ne savent pas par exemple j'ai lu un article la dernière fois où il y a des dames qui vont acheter des bouteilles pour les réutiliser mhm. dans le but de faire par exemple des jus de fruits ou etc. à vendre dans la rue. Alors, j'ai vu un article où c'était les bouteilles dans les hôpitaux, les Nidem Dijon comme par exemple maladie bu ñu naanee seen xam nga d'habitude maladie ni bu ñu nekkee seen bir chambre yi dañ leen di ay bouteille yu ndox oh. may leen ay bouteille yu ndox wala des fois hôpital si boppam may leen ay bouteille yu ndox oh. da ngay gis dañuy jël bouteille yooyu noonu jaayaat euh, bu offert duñu leen ko sax jaay dañ leen koy may ñoom dañuy ñëw ramasser bouteille yooyu yëpp bu ñu paree dem réutiliser waat bouteille alors on ne leur demande pas de ne pas le faire mais c'est-à-dire que le danger dans ça mooy que si on ne nettoie pas bien ces bouteilles là c'est-à-dire que bouteille yooyu noonu malade boobu noonu lépp lu mu am ci feebar mu ngi ci bi bouteille bi boo ko raxasul bu baax nga jël ko def ci sa ñam jox ko nit jaay ko nit parce que lan da nga bëgg rek ci daan sa doole mi nga daan sa doole ba pare lor ay doomu jàmbur ci mbedd bi amul benn sens man je pense plutôt que ne à la place que ñu leen koy may li gën mooy ñu jël bouteille yooyu yëpp dajale ko dem jox ko société yooyu nga xam ne dañuy recyclage ñu utiliser par exemple Simpa Simpa yeneen kii parce que tamit ñi leen koy may ñi leen koy may ils sont responsables c'est-à-dire même directeur hôpital bi ci boppam moo war a gën a note service bépp butéel boo xam ne ci hôpital la jógee. a sànni dañ koy sànni wala ñu yóbbu ko directement si usine de recyclage. non man j'ai une boo xam te nee moom dafa dem hôpital fekk benn daam di ramasser ay bouteilles mais am na benn bouteille boo xam da ngay dégg yoo xam da gis salive bi ba pare am na malade yoo xam ne dañuy saw sax ci biir bouteille. Oh. ñi nga xam parce nit ku nekk ak éducation nit ku nekk ak li mu xam nit ku nekk ak ni muy dundee xamuloo nit ki nan la ci ban ci ban ci ban anam la utiliser bouteille boobu noonu yow parce que yow da nga soxla bouteille bi parce que yow tu te dis que ne tey au lieu de dépenser de l'argent pour dem fële ñu koy woy fi mu waa pour dem jënd ji ay bouteille pour mun a mu leer la ne ay bouteille yu baax la pour mun leen def ci say jus jaay ko tu n'as pas les moyens de le faire wala tu penses que ne boo ko defee ba pare après doo ci am rentabilité bi nga bëgg mais nga dem jël ay bouteille, yoo xam ne xamoo bouteille lu bouteille lan la fii boo demee côté côté suñu wetu euh, wetu foire bi noonu am na benn dépôt bu fa nekk boo xam ne dépôt de bouteille la da ngay dem fekk fa ay centaine bouteille ba da ngay romb ni gis garage bi ni mu feesee ak bouteille mais bouteille yooyu dalay leer ba leer na jóge nañ de toutes les provenances après lan lañ koy doyee yow xamuloo ci dara maire yi moom la ñuy jël ñun suñu bopp des fois on fait cette gis nga jaay dangay gis ku la jaay bouteille nga jël yow nga naan ci bouteille ba pare nga delloowaat ko borom butéel bi Manam ki la jaay jus mu jaay la jus ba pare récupérer waat bouteille Manam maanaam da koy récupérer dem raxasaat ko defaat ci jus ko keneen yow ki nga man mi man mi ko nan bu fekkee dama am feebar bu am tuberculose ñaan ñu ko wala benen feebar man naan ci bouteille boobu noonu bu ma yow si tu nettoie pas bien cette bouteille là mais résidu yu feebar yooyu mu ngi ci bi bouteille bi moo recyclage bi dafa am benn circuit de recyclage bu am c'est-à-dire que dañ koy trier déjà voilà après ñu raxas ko ba set su après ñu désinfecter ko comme ça mu nekk propre à la consommation voilà c'est-à-dire que dañ koy désinfecter quand on désinfecte fait une bouteille dañ koy mettre à ébullition te loolu ay professionnel ñoo koy dañ koy mettre à ébullition maanaam bouteille bi dañ koy bouillir ba xal ko pour mën ray microbe yi ci nekk yëpp si tu ne fais pas bouillir la bouteille loko ko eau de javel eau de javel loo raxas raxas raxas xoolal microbe yaa ngi ca demuñu xam nga sobo wa euh, defoon na ni soo leen jëlee bouteille yu verre yi. Mhm. indil leen ñu ko ñu jox leen temps. Mhm. après ñoom ñu commencé def bouteille en plastique parce que c'était moins contraignant. et puis surtout du toj ainsi parce qu'ils avaient beaucoup de de problèmes pour euh, réapprovisionner. avoir les retours euh, pour réapprovisionner surtout le marché en fait parce que. su fekkee ne 100 000 bouteilles dafa toj sur 500 000 ça devient problématique. bien sûr maintenant quand c'est du plastique il te dit eh, ramène nous le plastique nous on le recycle on le met dans notre procès de recyclage après on le. embouteille ko après jaayaat ko. mais c'est seen procès de recyclage boobu noonu dañ ko teg ci ay normes. parce que nous, c'est des entreprises yoo ont ils ont des, études, des, auditeurs qui sont derrière, qui viennent voir comment ils font leur système de recyclage. Et Kiren, aussi, qui est leader dans l'agroalimentaire, mhm. qui est aussi un partenaire de King FM. On, a, on doit les citer parce que ce sont nos partenaires. Quand il arrivé pour nous, nous sponsoriser, nous euh, euh, subventionner sympa agriculplast, parce que nous, ils font des, euh, emballages en plastique et en carton. Mhm. Nous, pour nous recycler, pour que nous, mais dans les normes et dans, la Voilà, donc quand on n'est pas vraiment dans les normes, il faut faire attention.

Les sax kenn du ko jënd si mbedd déjà à la base. voilà c'était King Tic euh, ak